Saint-Louis du Sénégal mu nekk dëkk bu làq taarix bu baax waaye itamit mu am lu am solo lu nekk ci dëkk bi lee sa touche personnelle Saint-Louis nekk ville touristique waaye itamit nekk dëkk boo xam ne ku ne dafay bëgg ñëw umpateeku lan moo nekk file équipe bu leeral la ci émission bii di xam sa réew dugg ci biir koñ yi gox goxaat yi di leen woon yoonu Saint-Louis yi koñ bu nekk na mu tudd waaye tamit toog ak yenn koñ yu gën a fës ci Saint-Louis la ngir fësal ko yéen téléspectateur ngeen mën koo jariñoo ba ku nekk fi mu mën a ne mu xam cosaanam dëkk fan la daal di jógee. voilà fi mooy IA inspection académique IA moo nekk nii sunu yaay euh, madame euh, ajara jiite ko di si liggéey liggéey bu extraordinaire fii tamit mooy corniche. quartier bii nag ñuy dugg Balakos fii ne El Hadj Ousseynou Diouf dëkk suñu xarit suma frère euh, defar na lépp Sénégal defar na lépp tamit ndar si côté football ni mu jaayee suñu réew El Hadj Ousseynou Diouf euh, fii na dëkk tey boo duggee fii yëpp corniche la Amara Traoré bi newoon président bi nekk président Linguère newoon entraîneur équipe nationale corniche bii na dëkk ñoon Aba Talib Gueye avocat rue de Paris moo nekk noonu sunu sunu droite te nag quartier bii ñuy dugg tamit directeur général OLAC fii na dëkk euh, mu nekk quartier bi nga xam ni bëri na trop ay cadre ñoon Seydou Traoré ah, ñoon Joma si na ma fii mooy juma juma sëñ Abbas Sall sëñ Abbas Sall bu mag bi ngay dégg fii waaw ndar gii la bokk diggante ndar ak Louga waaw fii kër jigéenam la doomam doomam bu jigéen waaw l'essentiel dañuy wàcc nii dox bu ñu wàccee dox gisante ak président conseil de quartier bi mu wax ñu quartier bi ban année la ak Balakos loolu moo indi tur bi. waaw euh, Golbert Diagne euh, fii na dëkk. tey ñu dayanteel sunu jigéen sunu rakk a Diagne. mu nekk xale bu jàmbaare xale bu am taxawaay waaw ñoom seen papa lu doon def si lu baax yëpp ñoom ñu ngi koy def macha allah maanaam gole mi ngi dëkk fii si ginnaaw rek si wetu jumaa ji si wetu jumaa ji nekk foofu mu nekk tamit suñu fierté fu mu doon taxaw dafay wane ni man Ndar laa dëkk mais dafa doon wane ni man Sénégal laa dëkk mais dafa doon wane ni man bala Balakos laa bokk muy papaam ah, yal na ko yàlla yërëm yàlla dool leeram ñun ñëpp suñu papa la parce que fu ñu gis daf ñu daan di conseil di ñuy teg si yoon moytu leen di doomu nit ku baax day solo correctement doomu nit ku baax day wax lu baax day jëf lu baax day def lu baax day wax lu baax kon Golbert boobu amuñu fayam yal ñu ko yàlla fayal sa àjjana bi mu nekk. ah ñun de wax dëgg yàlla ñu ngi koy jéem a teg si yoon di koy teg ci paar bi fi ko tegoon ndax paar bi ku ko xamoon xam bëgg ndaram lu mu mës a am ndar la ko def léppam ndar la woon ñun ñi ay doomam sax ñu doon jot moom sax problème la woon ndax ndar ndar rek. waaw ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo fi des yal na ñu yeggale si jàmm ak salaam yàlla dafa leen jàmm ñu teg fi paa bi tegoon tànkam ñu yeggale liggéey bi. ah paa bi moom mënuma wax si moom parce que paa bi wax dëgg yàlla ni la fii à Saint-Louis parce que li mu def fii ku nekk ñaan na yàlla jaar si ay tànkam ndax góor gu baax la woon bëgg Ndar franchement bàyyi fi tamit li nga xamante ni comme kaamilam yi muy def at mu nekk ñuy ñaan yàlla tamit yàlla du ñu dimbale ñu ñu koy ñu koy def at mu nekk comme ni mu ko daan bëggee di si gërëm tamit kilifa yu bëri fii ku mel naka imam bi ak ay pas mal d'autorité yi nga xamante ne ñu ngi siy jàpp ñoom tamit leeral moom kontaan naa si yéen parce que man souvent dama leen di seetaan surtout su ma bëggee am information yu sûre et dama leen di topp franchement dama sama gaañaa ngi <laughs> sama gaañaa ngi a yàlla nekk beneen gardien bu liggéey bu am di la di leen gërëm ci seen ñëw bi fii nga xam ne rek euh, Saint-Louis ville euh, tricentenaire nekk na dëkk boo xam ni barfakal la macha allah dëkk de référence la lu baax loo bëgg boo ñëwee ndar gis ko fi moom la ñuy wax ville de la Teranga ndar ca maam ba tey Teranga rek lañu xam teral gan ak ràññe nag li nga xam ni mooy développement dëkk xàmme nit ñi kenn ku ci nekk sa toogaay ak fa nga bokk ak la nga war a tekki ak la ngay tekki xam nañu ko la sama mag ju baax ji daan wax yal na yàlla yërëm ko Golbert ni dëkk ci eh, dëkk ci dëkk bi comme ni mu ko waxee liggéey dëkk bee ko gën wax na dëgg yal yàlla xare ka àjjana référence la ci Ndar référence la ci Sénégal nit ku baax la te am naa chance fii la dëkk bala ko saro këram a ngi nii sama à côté macha allah à chaque fois bu ñuy waxee Golbert rek damay kontaan damay koy def référence ndax nit ku baax la di gërëm aussi seen euh, leeral comme chaque jour que je fais sur sama télévision bi à chaque fois je vous suis te seen émission yi non seulement waxuma la leeraay gi ak clarté bi mu am. ak euh, sonorité bi bu baax bi mu am mais émission yi baax nga def émission yi am importance maa ngi suivre seen débat yi tubaarfakala macha allah su ma koy suivre dinaa di sax daan naa teel tëdd waaye dama koy suivre suivre ba à une heure sama xale sax damay waa wàcc salle bi ba mu ba ba mu jeex macha allah parce que c'est une très bonne euh, c'est des vous faites naa trop ndax euh, yaa ngi ñëw fii ñu wax balakoos balakoos nag blocose la tuddoon parce que y avait une forteresse allemande bu fi nekkoon en 1925 ba tax na son nom bi sax fa la jógee nit ñi di wolof di wax balakoos transformation bi mais blocose la tuddoon mu nekk dëkk boo xam ne nag ñi ngi ko créé en 1825 mais officiellement Balakos est créé en 1925 délégué de quartier bi mu njëkk am muy Abdourahmane Diagne ñi ko wax tubaab Diagne ba mu demee ki ñuy wax Jibril njaay moo fi nekk ba Jibril njaay demee eh, mbooj ma fi nekk Fara Mbodj moo fi nekkoon bi Fara Mbodj demee ku ñuy wax eh, Moulay Traoré nekk fi ba mu demee macha allah maa fi toog tey man Habib Moustapha Ndiaye vraiment nekk quartier bu neex eh, nekk. ndax wax dëgg yàlla nit ñi tubaar fakkal la macha allah délégué rek lañu sax doon chef de quartier parce que nit ñi macha allah yeewu nañu kenn ku ci nekk xam nga fa nga war a toogee kenn ku ci nekk xam nga administration amuñu benn difficulté vraiment parce que c'est un quartier très civilisé un quartier boo xam ne macha allah yow sax la xam ne da soxla sax ñoom dañ la ciy wax échange la ak ñoom ndaxte quartier bu civilisé la. xale boo ci gis dans tous les coins du quartier bu taxawee rek macha allah loo bëgg xam ci Balakos da nga xam te yàlla def na am nañ fi set école ci ndar ci ci Balakos gi sept école waaw Golbert taxawaay boo xam ne duñ ko fàtte ba kër ñu koy fekk incha allah dans plusieurs générations yu bari yi ñëw duñ daa duñ ko fàtte mukk parce que jullit la woon ku bëggoon doomu aadama la ku bëggoon ndar-ndar la ku bëggoon lu sagal ndar la. ku sagaloon ndar la te macha allah ba ko fi yàlla indie ba tey mu nekk ku ne ndax fi la juddoo fi la fekk baax papaam moom laa jëkkoon wax ne moom le premier délégué de quartier de Saint-Louis tubaab Diagne ni koy wax Abdourahmane Abdourahmane Diagne fi la nekk. référence la chaque fois gis nga rek eh, chaque année ndar dañuy commémorer fête de des morts képp koo xam ne tey jii yaa ngi fi nekkoon bu jóge fi muy Marmiya muy Càkk Njaay muy cimetière Pikine bi ñëpp chaque année ci weeru koor bi premier dimanche deuxième dimanche troisième dimanche dañuy dem di ziare di ñeen ñaanal yàlla xam ne ñun ñii lu mu yàgg yàgg yàgg foofu sunu kër waaye ñu ngi dawal di leen ñaanal di leen nemmeeku macha allah Golbert kenn du ko fàtte référence la macha allah gis nga Balakoss maa ngi wax école yi mais gannaaw école yi. jàkka yu bare jumaa yu bare la grande mosquée de Sëñ Abba Sall nga xam ne en 1975 nan ko fi def su ko sax gënul yàgg Abba Sall référence la naan le monde islamique macha allah fay daayira jàkkay fay daayira dégg nga fa jàkkay Balakos bi aussi d'ailleurs ma lay wax ni bi ñuy wax Balakos blocose forteresse allemande bi bii ñu en 1925. Euh, ci ci ci foofu la nekkoon presque daanaka sorewu ko woon moo taxoon ñu koy wax blocos nitu l'islam ñoo fi nekk nit de référence ñoo fi nekk nit ñu baax ñoo fi nekk foo toll chaque fois naasiril xaq bi la xaq bi comme ni nga koy waxee yaa ngi koy dégg foo toll xale yi tabaar fakal la ñu ngi sant yàlla toujours daal bàyyi faal yi fi nekk nii taalibi murid yi taalibi tijaan yi jamiye yi macha allah daanaka daal balakoos daal c'est un quartier de référence dëgg yàlla boo doon tànn quartier yi nga xam ne quartier de référence la waxuma la sax dans la dans Saint-Louis mais ci Sénégal vraiment quartier de référence la la Balakos nag ma leen di conseiller rek mooy ñu muñ de góorgóorlu nekk seen gannaaw waajur dal gi seen waajur daloon depuis maam yi ba tey nga xam ne doomu ndar dafa dal doomu ndar dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa mën a ràññee doomu aadama dafa mën a dafa dafa dal ci lépp sur tous les plans nekk des références fu ñu taxaw bu ñu gisee doomu ndar bu mu génn ci génn ci ay nawlem dañ koy naw macha allah yàlla may na leen loolu loolu yàgg na fu doomu ndar taxaw rek ci qualité am la ci jikkoom la ci comportement am la jeunesse bi tabaarkalla macha allah ñu ngi am yaakaar di leen yedd di góorgóorlu te ñoom tam ñu ngi def lu ñu mën. di dimbale seen wayjur vraiment la jeunesse saint-louisienne est une jeunesse de référence macha allah li ñuy ñaan rek yàlla may leen ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk yaa ngi ñaan yàlla am xëy di dimbale say wayjur ndax ñu noon noonu daan def suñu ay wayjur te ñoom tam ñaan nañu yàlla ñoom tam fu ñu fu ñun ñeen seen wayjur yi àggoon ak suñu wayjur yi ñoom ñaan nañu yàlla àgg seeg ñu àgg fekk ñun macha allah ci teraanga ak def lu baax. xam sa réew nag c'est une émission boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy suivre daa xam sa réew daa xam sa taxawaayu réew daa xam sa mën-mënu réew te daa mën a gis sa koom-koomu réew macha allah.